94 Walf Sénégal dellu si di leen char di charé mboolem képp koo xam yaa ngi topp sunu site bi di 94 Walf euh, Sénégal seen analyse chronique yaa xam leen koy defal saa su nekk ci réew mi ak bitim réew ñu ngi leen di jaajëfal di leen char wéy leen di toppal 94 Walf euh, Sénégal Bara Sangaré <laughs> Bara Sangaré de daa mel ni patriote yu bëree baree baree bëri kontaan nañ ci wala yaa ma gën a xam lijaase gin ko lijaase maanaam daal Bara Sangaré ma nga xam ni moom daa jëloon fitu gaa borom euh, euh, sérité iben <laughs> ay waay adduna adduna daal a ngi ne moo tax pos par pos pas par pas adduna du benn fan lu nekk daa jara suuraale Bara Sangaré moom xam na ne sonaloon na lool patriote yi patriote yi tamit xam na ne moo tax bi déggee daal niveau nouvelle bii ñoom ñëpp daal dafa mel ne dañoo kontaan ba voilà àdduna nii la nag voilà kenn ku ci nekk rek wala la nga xam ne ni moom la moom la joxoon ci ay poste pour nga seere wala na ko doon seere baax na wala si baaxul loolu moom ñun ñi ñooy sujet en tout cas daal bari na ci ñoo xam ne moom kontaanuñ woon ci Bara Sangaré mais nag noonu la voilà wàcce nañ ko nag voilà wàcce nañ ko patriote yi kontaan nañ Sénégal nag daan na baax de ndax ñii. sénégalais yu bari dañ doon xaar ba xam fan la ñuy mujjeek état bu bees bii voilà parce que tamit ñu baree bari amoon nañ seen i gët di teppi di xool di déglu baxam wala ñoom baara sàng rek ñu mel ni ñoom voilà te Macky Sall tegoon leen fii ñuy def leen neex rek voilà tey nag wàcce nañ leen voilà lii rek moo mën a am jàmm rek daati am waaw ndax xam naa ne moom raxas beeg <laughs> bale gi bale gi cee de sa waay dana balee balee bale parce que am réew moom ku ko bëgg a jubbante dafa am ñoo xam ne buñ nekkee sa biir rek doo mën a jubbante faaw rek voilà nga bale mu ñu wàcc voilà su ko defee li nga bëgg a def dëgg wala ci koy mën a def voilà xam nga Bara Sangaré mos wax dëgg fa yàlla vraiment boo dekkoon mekoro sénégalais yi laaj leen kan mooy Bara Sangaré voilà Bara Sangaré mi nga xam ne wax dëgg yàlla patriote yi bu ñu déggaan turam sax dañuy voilà daw làqute ji wala ñu nëbbatu ji voilà addunaa ngi nii nag buñ la joxee poste da ngaa war a liggéeyal sa réew ba booy wàcc kenn du bëgg nga wàcc voilà dañu xam ne yow kat wax dëgg yàlla liggéeyal nga sa réew voilà moo tax euh, dara wayul wala gis nga poste yi tey doole yiñ leen joxoon sénégal yi ñoo leen ko joxoon voilà euh, doole yooyu buñ ko nangoo ci yéen aywa fan ngeen di jëlee doole léegi fan. voilà parce que doole yi ngeen am sénégalais yi ñoo leen ko def voilà kon nag sénégalais yooyu tey dañoo jëlaat doole yooyu joxaat ko ñeneen. voilà fu ngeen koy jëlee kon doole ji sénégalais yee ko am amu leen ko yéen ginnaaw bu leen ko sénégalais yi joxee nag ci ngeen doore am doole waaye nag tey gis ngeen ko doole jooju anam tey jeex na voilà jëlee nañ ko ci yéen joxaat nañ ko ñeneen ah xëy na mën naa am sénégalais yi falal leen waaye ah du gaaw de voilà ndax Sénégal moom. li ñu xam mooy bokk ndey bokk bàyyi di xaacandoo dóorandoo boo leen fitnaalee rek ñàkk nga leen maa leen